c'est politique dellusiwaat ci Equivox yi tey ñu dalal nag Djibril Beye mi nga xamante ne mu ngi euh, bokk ci plateforme euh, Diouf Sarr Dakar a ko soxla bokk ci Benno Bokk Yaakaar également di économiste xam naa sa casquette économiste bi dinañ ci ñëw ndax réew mi ñu ngi wax relance économique doon wax PAP ak fi ñu ci toll ak it loyaas beeg lu jëm ci denrée de première nécessité nu mu méttee gis nga xëy na coow li am ci diggante ñi nga xam ne ñooy meunier boulanger rek ministère bi ñu dénk wàllu commerce mais laata boobu. ngeen ni Diouf Sarr Dakar a soxla ci diggante bi ñu koy wax euh, ñu ngi doon tudd Amadou Ba léegi leer na ni Amadou Ba euh, mu ngi féetewoo ca kaw est-ce que aujourd'hui fi ngeen ci toll rek mobilisation bi ngeen def autour de Diouf Sarr yéen a ngi yëg apport Amadou Ba ci ginnaaw Diouf Sarr. Euh, merci Ousmane dama am benn damay nuyu d'abord sa édite téléspectateur yëpp. ñëpp ñuy suivre Equivox ah di sargal borom kër gi di sargal ñëpp ñi ma fi fekk di leen nuyu bu baax a baax di la remercier ci invitation bi waaw amoon nag benn précision bu mu bëggoon def balaa may tontu sa question wax nga dëgg ñun bi ñuy dërmal euh, choix coalition bu nekk di choisir sa candidat ñun waa dakaar daje woon nañu créer plateforme boo xam ne c'était apolitique plateforme bi nag ay doomu dakaar la woon. ñoo xam ne ñu ngi ci politique ak ñu nekkul ci politique ñu daal di xool sigle bi muy ADS Ablaye Diouf Sarr ñu tuddee ko Ablaye Dakar ko soxla waaw muy signal bu ñu doon jox président Macky Sall je pense que président Macky Sall signal boobu am na ci lecture bu positif ndax bañ jógee ci loolu suñu candidat li ñu xalaatoon ci moom ne dakaar soxla na ku mel ni Ablaye Diouf saar président Macky Sall tabb na ko muy diriger nekk tête de coalition Benno Bokk Yaakaar ci dakaar ñu koy féliciter ci loolu di tam remercier président Macky Sall ci loolu ndax kilifa moom euh, il faut nga mën a di déglu sa base politique parce que loolu nag bi ñu koy def dañu jàppoon ne c'était vraiment le meilleur profil. mais est-ce que jàpp nga mën na defee mënoon na defee neneen lu dul waaw mën na keneen ku dul. waaw mën nañu jàpp ne boo jëloon critères yi nga xam ne objectivement ci la waroon tànn day génne toujours Ablaye Diouf waaye nag comme moom su critères yi ni ñuy wax. mën na bañ a doon ay critères am euh, kon mënoon na tànn keneen parce que tamit ñi ñi mu ko seqaloon tamit c'est des euh, c'est des personnes légitimes dans le parti c'est des personnes légitimes dans Benno Bokk Yaakaar ku ci nekk mënoon na ko doon donc bu ko tànnee dañuy jàpp ne rek am na lecture ci liñ defoon waaye it quand même président xam na kan mooy Ablaye Diouf Sarr ak Ablaye Diouf Sarr nu mu mën a apporter Benno Bokk Yaakaar waaye ba loolu weesoo la Ablaye Dakar a ko soxla bi tegu ci suuf léegi nag plateforme bu bees bi mooy Ablaye Dakar a ko soxal parce que ndax léegi waxu programme la ñuy wax. léegi Dakar soxal. waaw nekkatuñu ci candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar léegi dañu nekk candidat à la ville de Dakar donc moom Dakar a ko soxal pour mën a indi dakaar fi nga xam ne euh, fa la fa la war a nekk ah ci sur le plan. africain sur le plan international léegi nag nga may laaj ndax. Amadou Ba Amadou Ba waaw xam nga Amadou Ba quand même euh, c'est c'est d'ailleurs le coordinateur national de benn Bokk Yaakaar ah, moom moo déposé suñu caution yeeg lépp moo ko déposé kon Amadou Ba euh, tey jii ku am cër la ci mbir bi fi ñu jëm ni ñu jàpp ne bi ko président waxee ba tey effectivement parti bi coalition bi parti yi ko composé ñëpp ànd nañu def benn say nekk autour de Ablaye Diouf Sarr. mais gisaguñ ko de. pour jë waaw mais xam nga xam nga acte bi mu posé ba léegi gisaguñ ko. waaw wax ma kan nga gis keneen ci benn bokk yaakaar. ah barki Demba Ndiaye bi ngeen doon def point de presse di tontu waa waa waa waa waa yeewi ci bi euh, Barthélemy Diaz war a wuyu ji Ousmane Sonko naan ko bu dee man la du ma wuyu ji gis nañu ci jour boobu ca ngoon nga ngeen def point de presse boo xam te ne Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fa woon mais gisuñu Amadou 19 communes yi ñoo fa nekkoon. ak yenn responsable ku mel ni euh, Seydou Gueye nga xam ne moom dafa yor communication parti bi kon ñooñu ñoo fa nekkoon waaw mais ñi nekk loon de liste presque nekkuñu fa woon donc Amadou Ba boobu mu ngi ci yeneen xam nga nag duñu la wax suñuy mbir yëpp xëy na mu ngi woon ci programme bi donc ndax euh, ñun dañu bëgg ñëw jël Dakar euh, jox Dakar waaye un programme bien ficelé. un programme ambitieux ndax bu ñu jàppee ñi fi newoon. 2009 ba tey ñoo fi nekk muy ñoom Barthélemy xalifa moo fi njëkkoon nekk xam nañ li ci xew euh, dafa jël mairie bi bi mu ko jotee di ko xeexee pour ambition personnel am pour doon président donc xeex boobu mu doon xeexee mairie bi pour nekk moom président Sénégal dafa tax mu fàtte li nga xam ne moom la waa Dakar xeex dañ ko xeex waaw non daf ko doon xeexee xam nga ñu gaañ ñu jox la ville de Dakar ñu jox la lu toll ni mairie ville de Dakar nga nekk maire say préoccupation dafa waroon doon rek def lépp pour askan bi ba ñoom ñu gisal seen bopp. loolu la mos a moom daf ko jël di ko xeexee nguur gi. dama lay nan la ko xeexee. waaw mën naa la jox benn exemple. Euh, euh, am na at bi nga xam ne def nañu acte trois de la décentralisation bi nga xam ne bi ko président indee boo xoolee budget Dakar avant trente milliards la woon. dafa jéggi foofu dem cinquante quatre milliards. acte trois bi moo indi woon loolu mais Khalifa lu mu njëkk wax wax d'accordul ci acte trois bi. at boobu voté wul budget préfet bu dakaar moo jël décision pour le budget parce que juste c'était pour moom affaire politique politicienne or am na station yoo xam boo ci toogee am na toogaay yoo xam ne boo ko toogee donc waratoo xool yow sa intérêt personnel donc moom dakaar daf ko jël pour def ko tremplin pour ambition mais personnelle. de la même manière aussi ñi nga xam ne ñoo jiite réew aussi dañuy bëgg teg loxo Dakar aussi di def lu ñu mën surtout sax président Macky Sall bi ñëwee 2012 ba ko jéem ngir teg loxo waaw xam nga 2009 c'est de bonne guerre aussi en politique. xam nga 2009 président Macky Sall sa nekkagul woon président xalifa Sall bi ñu koy jox dakaaru président Macky Sall nekkul président 2009 lañ ko ko jox boobu ba tey mënoo duut baaraam lu mu def ci Dakar. Ah waaw bu ñu ma waxee de des fois ñu ne ma meew yi ñu jox xale yi xam nga meew yu xale yi naan kenn munu ko justifier kenn mënu ko xam fu mu jaar. ensuite lu toll ni Dakar budget bi toll ci 60 milliards nga yor ko 2009 ba tey. dara dara lu ñu mën a duut baaraam. loolu dinañ ci ñëw beneen ah dañ ciy wax. loolu dinañ ci ñëw beneen jamono xam nga président Macky Sall tey mën na duut baaraam lu bëri ci lu mu def ci réew mi fekk na euh, courant bi di xuut kamaj 550 mégawatts am déficit bu garaaw mu ñëw doublé ko 1350 mégawatts tey Sénégal dafa am excédent kon loolu lu ñuy duut baaraam la mbay bi mu fekk. Euh, Euh, autosuffisance en riz bi mu xeex ko ba yóbbu ko à hauteur de 60 pour cent. bu boobaa kon euh, soble bi tey mu nekk excédent ba ñuy wax ne. Euh, soble bee ngi yàqu kon nañu xool nu ñu ko war a commercialiser. mais loolu xanaa c'est le paradoxe sénégalais nan ngay waxee excédent ci ceeb bu wax ko ci soble ba pare mbas mi ñëw ñuy jéggaani ji bañ doon wax ni sax bu ñu toogoon yeneen ñetti weer yoo xamante ne tey jéggaani réew mi dina nekk ci guuta nga bëgg ma wax ne. ah loolu loolu loolu xaw ma kan moo paradoxe xanaa c'est le paradoxe sénégalais. waaw loolu du paradox mooy da nga am information boobu ñu lay jox xam nga nag senegal dafa bëri fake news ma lay rappeler bi mbir yi ñëwee euh, pandémie bi nga xam ne adduna bi yëpp tiit nañu ndax dëgg yàlla man économiste laa tiitoon naa trop ci Sénégal ne xëy na dinañ dem ba dund ay pénurie yu metti waaye président Macky Sall dafa voté am wàll boo xam ne cinq milliards yi mi mbiru santé la ko dugaloon waaye am na lu toll noonu wala lu ko ëpp lu mu dugaloon ci approvisionnement en produit gaziers pétrolier ak en produit denrées de première nécessité loolu moo tax Sénégal amul benn pénurie ma lay rappeler ne euh, fii moom kenn gisu fi pénurie pendant tout la pandémie léegi nag mbiru soble bi ma lay rappeler ne yow mii mën nga seede ne soble importe bi bu mu commencé ñëw yàggul parce que Sénégal dafa def production bu am solo. yooyu yëpp nag mu doon ay effort yu président man gis naa yoo xamante ni borom dañoo mujj di ko di gas di suul. waaw mu lay wan ne parce que dafa doon yàqu dañoo bay bay vraiment ba dépassé li nga xam ne yaakaaroon nañ ko muy Sénégal presque atteindre na autosuffisance ci wàllu oignon kon ba léegi nag xëy na défi yi ñu war a relever tey mooy xool conservation bi ak. Euh, d' accord yow xëcc nga ma ba dugal ma foofu parce que da nga ma doon wax ni Dakar moom mi fi nekk defu fi dara loolu on aura l'occasion waaw defu fi dara duutal ma baaraam lu mu fi def on aura l'occasion Ousmane mais d' abord. non Ousmane s'il vous plaît waaw non duutal ma baaraam lu Khalifa Sall def Dakar loolu dinañ ci ñëw loolu benn monument bu ndaw sax tabaxu ko Dakar parce que li war a tax ngeen wax ni. defu fi ñoom ñu ne def nañ jël sa pare jël sa benn xale boo xam ne vraiment euh, amul yar euh, xamul àdduna ni muy waxee ak mag baaxul ñoo xam ne daal vraiment incarné wuñu ay valeurs yi nga xam ne ñun suñu maam yi parce que dëkk bi ñu nekk dëkku Léopold Sédar Senghor la dëkku Alaaji Malick la dëkku Serigne Touba cardinal Thiandoum dëkku ay nit yu baax ñun même suñu maamu cedd yi dañu amoon ay valeur kon ñun dañu am valeur yooyu mooy respect doomu aadama waaw mais ñi ma gis mu bëgg leen pare ne pour jox leen Dakar ah ñun Dakar waaye du ñu jox Dakar Barthélemy Diaz ngay tudd waaw du ñu jox dakaar xale yu ndaw yoo xam ne xamuñu mag amuñu teggin amuñu yar. Ah amuñu benn qualité sur le plan humain lu dul saaga ak xuloo ak xeex Dakar duñ ko dénk ku mel noonu. mais bu doon loolu la lu tax ngeen ragal kon pourquoi on a ce sentiment que ni da ngeen a ragal ndax li koy firndeel bokk na ci déjà euh, coow Barthélémy Dias loo xam depuis fukki at ngeen xaar ba léegi di ko soog a yëkkati euh, lu waral euh, président Macky Sall barki Demba Ndiaye. ca France mu ne kenn mënuma intimider mu mel ni dafay xaw a yëg ragal ci suuf ndax loolu la ko Ousmane Sonko d'ailleurs tontu euh, euh, euh, Dakar fi mu ne nii échappé bi mu leen di échappé ak li ngeen ci def yëpp ngir fexe ni ngeen ci jotee ci local yi ngeen dàq ko dàqati ko ba tey am na ñeneen ñu njort ni sax ci dàqaat ko ngeen jëm loolu yépp bu tegoo seen kaw lu war a ragal gi waaw ginnaaw li ngeen di wax naan ay ay gune la duñ leen ko jox dañuy saagaak noonu. waaw Dakar moom adversité bi dañu moom duñ ko jox euh, duñ ko dàq élection yi duñ ko dàq. le 23 janvier soreetul. Hmm. Euh, Sénégal yi dinañ porter seen choix ci ñu am dayoo mën a yor mairie Dakar ñu am dayoo mën a ëllëg bu Sénégal adduna bi yëpp dajaloo ñu dajale seeni maire bu fa demee kenn duñu xepp xam nga naa la xamal deux choses euh, gis nga politique dafa doy waa politique mooy dendaloo ñu mënul dend. Hmm. waaw mooy Ablaye su dul woon politique am na ñoo xam ne du seq ak ñoom compétition du ci njàng du ko seq ak ñoom parce que bokkuñu niveau bokkuñu niveau hmm. amuñu njàng amuñu xam-xam du ci ñoom du ci ay responsabilités yu mu jaar du ci yar fii fi mu jóge ndax Ablaye Diouf Sarr bu ko xool xam ne. ku ñu yar la ku ko xool xam ne ku jox nit cëram la kon moo tax may xool bu yaa ma ne ndeysaan politique dafa doy waar daal des fois mu boole la ak ku mu boole donc loolu ñun côté boobu amuñu ci lu ñu wax euh, on a un candidat ki a des qualités humaines yoo xam ne Sénégal yëpp nangu nañ boo jëlee ay compétence am mm. euh, jaar-jaaram ne na ko ba ci pandémie bi dafa relever des défis kon kooku ñun euh, dafa doon koo xam ne mbër la boo xam ne ah ñi jàkkaarlook moom de gisuma neex dëgg yàlla. waaw mais ca yoof ga mu nekk sax yow li nga wax nii ku ba def ko lenn. man ca yoof ga nga nekk bëri nañu taxaw ni daf leen war a abal ci mairie bi. waaw falaa laa jëm. muy xëccu di ñëw ci Ndakaar nga bëgg ñu koo jaayee nii. fa bàyyi Sénégal Ndakaar waaye dinañ wax ba xam li nga wax nii moo ci am moo fa laa jëm waaw la ma lay laaj laa bëgg nga. ñëw ci léegi nag affaire Barthélémy Dias bi. Euh, dix ans xam nga euh, wax dañ koy gis nga ñun politiciens yi man dama gis ay vidéo Barthélémy Dias yu jàll yoo xam ne bu nekk ñetti vidéo bu ci nekk li mu wax tey fii ëllëg leneen la wax il faut ñu tàmmal Sénégalais yi constance il faut ñu respecter Sénégalais yi gis nga yàlla moo ma may ma toog fii di wax jàkkaarloo ak yow sénégal yi di ma seetaan mais ñu toog di ma déglu ñoo ma ëpp xam-xam donc il faut ñu am humilité Barthélémy Dias procès am durewul dix ans acte bi mu def muy liñ koy jiiñ ne dafa rey nit xam nga waxuma dafa rey nit. Hmm. parce que du man maa ko war a wax nit da ngay maandu acte biñ ko jiiñ ne dafa rey nit moo def 10 ans xam nga Sénégal dangay def acte rey nit am na ku ma dégg ku ñuy waaj a jugé fan yi dégg naa moo tuuroon jëkkëram dëwlin sant Mbàkke hmm. xam nga kooku bi mu ko tuureeg léegi yàgg na yàgg na jàppatuma at yi waaw kon loolu war nañ ci sax waxtaan di wax ne war nañu di gaawal di baral. justice bi. Ah ci àtte loolu ah moom euh, lu war a mën a nekk la lu ñu war a mën a réformer la waaye bu dee kaaw Barthélemy euh, ni mu ni muy dalee Sénégalais yëpp moom bosam sax dafa gaaw ndax Barthélemy 2011 2017 lañ koy jugé biñ ñu ko jugé 2017 dañ ko condamné kon tey bu def loolu appel loolu pare na condamnation boobu kon day tax ne Barthélemy tey du nekk candidat xam nga. Barthélemy bi ñu koy condamné 2017 famille Ndiaga Diouf dañu jàpp ne condamnation bi dafa léger parce que Barthélemy li ko procureur toppee woon kenn juge d'instruction bi da toppul procureur ci loolu. dafa topp juge d'instruction dafa bañal procureur procureur li mu doon demandé bu ñu ko toppee woon Barthélemy Barthélemy correctionnel lañ ko toppee correctionnel parce que juge dafa xoolaat fee yi am neneen nu mu ko jàngatee. kon kooku vraiment li mu def sax c' est en faveur de Barthélémy Dias. léegi en dehors de ça léegi Barthélémy dem tribunal ñu condamné ko deux ans dont six mois ferme vingt cinq millions à payer à la famille de Ndiaga Diouf moom moo def appel mais procès bi jeexoon na 2017 moom mu def appel yoon moo ko ko may mu ne man d' accorduma ci jugement bi en première instance mu def appel deuxième instance waaw cour d' mu ngi njëkk a woote 2020 donc procès Barthélémy bu bees bi cour d' appel 2020 bii commencé. donc du 10 ans 2020 Barthélemy moo demandé 5 renvois dama doon waxtaan ak son conseil en communication ci débat mu ne Barthélemy renvoi bi mu njëkk demandé papa moo doon anniversaire mu demandé ko juge bi deuxième renvoi bi feetu nawel moo jot comme moom euh, feetam la mu demandé ko juge bi mu renvoyé ko beneen bi dafa doon tukki di dem bitim réew waaw kooku ni mu daan def buy waree tukki buy anniversaire u papa ma jàpp ne sax juge d'instruction bi man nekkuma di juge. Ah, d'accord yow lan nga ragal ni moom la ragal ba tax nga jàpp ni wiri wiri yëpp lan mu demandé renvoi ba le 7 juillet ñu ne ko kon léegi renvoi bi dinañ ko yóbbu le 10 novembre waaw lan moo fi bees. léegi yéen lu leen xam lan la ragal. waaw Barthélemy xam na ne amul profil Barthélemy amul profil pour nekk maire gis nga maire commune am sax dafa tombe ay problème Ablaye Wade troisième mandat ba nga xam ne sénégalais yi dañu jëloon polluer politique bi ba sénégalais yi bi ñuy voté. amul profil boobu def li mu def barki Dembo Ndiaye ils n'ont mobilisation bi ñu gis derrière lui ànd ak ay leader am ba tey rek mu ngi def mobilisation également fu mu jaar am ñu ko gëm wax ak moom loolu yëpp yow nga ni daal kii. du leader ils n'ont jamais voté pour Barthélemy ils ont voté contre Wade. et dans ce en ce sens là qu' ils ont tous été dafa changé. ma fa laa jëm contexte yi ñuy wax en 2009 ils ont tous été maires ndax loolu. donc kenn mosu leen voté léegi sa Barthélemy Diaz lan lañ ko xame saaga ñàkk teggin ñàkk war ma mag. mu ngi ci seen camp. mais ci loolu la nekk. mais loolu mu ngi seen camp aussi. ci ban camp. yéen seen camp coalition benn bokk yaakaar. gis nañ fi ñuy saaga ah, jox ma exemple. quand jox ma ko. jox ma ko wala jox exemple. moo tax defuñu ko gis nañ fi ñoo xam ne taxaw nañu assemblée nationale. waaw mais kooku bu mu ko defee yoo xamante ko defee président da ko sanctionné. naka soo ko gisee lan la tekki ci parti bi daf ko sanctionné président daf ko sanctionné da ko mere parce que gis nga bu ñu la joxee kilifteef da nga koy mën a attan mën a am hauteur kilifa day am hauteur gis nga euh, responsable quelque qui aspire à diriger soit une ville de Dakar soit. la magistrature suprême dafa am na war a taxawee waaye doo dem dugg ci ay salon de massage kenn diriwu la kenn jubbuwu la kenn dorogewu la nga xëy suba ne ah Macky Sall moom ma fa yóbbu xam nga tam loolu dafa doon ay mbiru caaxaan. léegi kenn mënu ma intimider lan la loolu dafay polluer le débat politique. xam nga débat politique bi tey dafa waroon di porter wu sur les problèmes des sénégalais tey dañu waroon taxaw dama lay wax mais ñoom duñ ko bëgg xam nga lu tax duñ ko bëgg. opposé wu ak président Macky Sall dafa jafe ndax soo duggee moom sur des questions économiques macha allah. ñëpp gis nañu waaye boo duggee ci la waaw xaaral ñu ñëw soo man dama lay wax les questions économiques mu gàcce ngaalaama Macky Sall depuis 2000 Sénégal taux de croissance yi mu tolloon à part année bi nga xam ne mooy année pandémie bi où on a connu un taux de croissance quand même qui est faible mais à part cela on a connu de 2014 à 2019 des taux de croissance de 6 et quelques pour cent. et que 2018 on a atteint un pic de 7 pour cent. D'accord ma ñëw. gis nga pandémie bi bu ñëwul loon tey deux mille vingt deux dañuy wax waxu Sénégal boo xam ne dina commencer sortir la tête de l'eau mooy di commencer mais lu waral kenn mënu ma malheureusement pour Sénégal lu waral wax jooju pandémie bi ñëw xaw ñu bloqué mais malheureusement heureusement Sénégal grâce à la vision du président Macky Sall on a maîtrisé ah les les les conséquences néfastes de la pandémie ba tey ñu nekk ci phase de relance mais lan moo waral mais li nga wax on a une prévision pour cette année d'une croissance mais de plus de 6 pour cent mais li nga wax ni ndaw yu bëri yi génnoon ci mois de mars au delà des waxuñu loolu dañ ne dëkk bi moo metti ba léegi ñu ngi koy yëg lan moo waral moom ci taxawaay boobu ñu koy xaar ca Paris mu naan kenn mënu maa xoqtal. waaw xam nga président. Euh, wax jooju nag président dafa bëgg a xamal ne parce que dafa am terrorisme Sénégal dafa am terrorisme politique. Sonko Barthélemy ce qu'ils font terrorisme politique la te moi je lance un appel à l'État il faut que l'État reste debout. il faut que am na boroom kilifa politique bu mag bu ko daan wax feu Djiboka avec beaucoup de rigueur il faut que force reste à la loi. loo bëgg wax foofu. mooy Sénégal dafa nekk réew droit mu doon ku nekk ci wut ku tegi ku nekk ci nguur gi ñun politiciens yi foog ñu modeste wax naa la ko sànq moomuñu Sénégal. ñu respecter l'administration sénégalaise ñu respecter la justice ma damay toog débat ñuy ñuy tudd Bassirou Gueye di ko saag Bassirou Gueye dafa am njaboot Bassirou Gueye dafa am njaboot xam nga nit ki mën nga bañ ànd ak moom barki dem bi leen cour d'appel joxe dëgg ci seen recours yi. dañu wax ne xam nga Barthélemy cour d'appel moo ko convoqué mu ne du dem Sénégalais yu bëri dañ leen di convoqué ñu xëy jël bus amuñu oto de jël bus. wala jóge Tambacounda dem tribunal rang est-ce que ñun dañu gën sénégalais yooyu kenn du leen dégg baaw baab la dëkk ñu convoqué ko yor na oto mais dafa bloqué sénégalais yi doon jóg di wuti dépense di taal réew mi parce que juste Barthélemy bëgg na wane ne c'est un victime parce que juste Barthélemy xam na ne ñoom yor nañu mairie bi 12 ans defuñu fi dara amul bilan dafa war a defaan bilan xam na ne mënul defaan bilan mu ne xaaral su ma victimiser woo xëy na sénégalais dinañ ma voter le 23 janvier. il kon yow bu ñu la déggee mooy président Macky a taxaw taral xeex bi. ah président Macky Sall affaire mooy président. wax naan il faut que l' état reste fort lan nga bëgg a wax foofu. xam nag man dama lay wax l' man nag ni may gis ni murit la damay wax sama benn xaritu murit gis nga état s'il n'est pas fort du mën protéger Touba l' et est au-dessus même de toute considération est-ce que yaa ngi dégg lu may wax. dama ne man murit la Serigne Touba laa gëm man gëmuma policier bu taxaw di liggéey Serigne bi romb mu daw di ko su jottal man gëmuma loolu dafa war a taxaw gérer sécurité bi parce que loolu mooy mission première am dama ne l'État pour moi et au-dessus de toute considération et je dis l'État mooy ki am le monopole de la violence Macky Sall mooy yor sécurité sénégal yi lu xew dal ci sénégalais yi moom mooy répondre il faut que Macky Sall jël see responsabilités. ci lan pour que toute personne. di jaay Samba Boy di jéem a nëxësal bànqaas yi te état du Sénégal ñu yamale sa place yow ñu nëxësal la parce que nëxësal nit kooku moo gën Sénégal ñu nëxësal. te da ngaa njort ñi ñii taxawaay boobu la ñu amee. moom la ñu taxawee Ousmane Sonko waaw. d' accord euh, préfet yi pourvoir en euh, cassation gulet lu mel noonu ñu koy gis. loolu it euh, fi ñu jëm ñi ci local yi ndax du ko gën a compliqué. waa gis nga Pape loolu dafa tax ñu war a kontaan si suñu réew xam nga pour quoi ñu créer recours recours lu tax texte yi prévoir ko parce que fa nga dem mën nañ la fa teg lu nekkul dëgg wala ka ne mën na bañ a mën na juum xam nga nit man mën naa nekk préfet ma interpréter loi bi en toute bonne fois nga ñëw ma ne sa dossier bi baaxul en toute bonne foi sans parparloo fekk damaa juum yow d'accord loolu moo tax législateur d'un pays de droit prévoir lu ñuy wax recours pour ka nga xam ne moo njëkk a saytu bu juumee yow am nga droit dem feneen kooku saytu recours pour loolu la bu fekkoon ne wóor nañu ne préfet yi du ñu juum dëgg rek lañuy ñuy àtte recours du ko jar mais ñun ñoo la gën a xam ñi tabax Sénégal ñoo la gën a xam ñi tabax États-Unis ñoo la gën a xam ay principe ci àdduna bi yëpp que nit ki bu ñëwee fenn am lu mu fay déposé mu am ku koy arbitré bu ko arbitré ba pare am na droit mu def recours gis nga gis nga président de la république dañu wax ne dafa jàppale woon Barthélemy ci 2011 hmm. mais président euh, Macky Sall mën naa am problème léegi moom mu jàppale ma je de tout cœur avec Djibril Bey mais est-ce dafa engagé justice su ma justice condamné yoonu président nekku ci léegi li li justice di wax du li président bëgg. léegi bu fekkee un ministre de la justice fekkee c'est un ministre de la justice loolu pap c'est important. Hmm. tey jii président xam nga bi muy wax day jàppale Barthélémy Diaz candidat la woon. Hmm. loolu moom la engagé woon en tant que candidat mais tey xam nga c'est le président de la République bu xëyoon suba teel léegi mu jël une décision président mën na xaatim décret man ma d'accord ne décret bi jaarul yoon man citoyen ànduma ci. ma dem cour suprême. oui cour suprême da mën na ko annuler affaire enseignant yi ñu waxoon seen concours dañ ko annuler te président dafa ne damay jàppale sama ministre loolu la wax enseignant yi demoon def seen recours bi ñu defee recours cour suprême daf ko kase kon président waxam engagé wul justice nous sommes dans un état où il une séparation des léegi nooy comprendre un ministre a la justice bu taxaw barki Demba Ndiaye bi ñu levé immunité parlementaire ñaar député yi mu ne metti na ci say ñu leen di futti nii di leen yóbbu Euh, ci ci kanamu yoon mu wane appartenance am ci benn bokk yaakaar. Ah, nga gis beneen ministre bu taxaw fële tamit euh, moom it di wax ni mois de mars événement yi fi xewoon bu fekkoon laal nañ benn karaw waa Thiès ñu taal leen. di wax oh, xam nga xam nga ministre boobu dafa am casquette politique. dafa doon xale. Euh, comme barte Barthélemy Diaz. ah nga nangul ko fii. bañ a déglu damay jëm fa laa jëm dama ne dafa am casquette politique. li mu wax moom la engagé en tant que homme politique mais nag. looy rafetlu la ñoom Barthélemy Diaz yi yenn saa yi il faut nga man taxaw ne leen ay pour œil dent pour dent. li muy wax looy rafetlu la parce que attends man dama lay wax man def naa conférence parce que ma ne duñ leen mayeti dara seen yooyu ñu def nañ ko arrêté. mais taxaw ñu gis leen da ngeen ko waxoon. ma ne non non leen man laa wax def naa ko bari ki démb. on en de mettre en place. Hmm. c'est même déjà fait mais ñu ngi koy renforcer. et dinañ ñu fekk sur ce terrain xam nga en général boo yoree yow boo nekkee sa président nekk yor réew mi yor dafa am yoo xam da nga koy maytu mais ñu mel ni ñoom Barthélemy il faut nga ne stop donc bu dee jatara ngay wax comme ndaw la ni ñëw xam naa ko man jaar-jaaram université li mu xeex pour Sénégal Barthélemy xeex ko Sénégal parce que Barthélemy kenn xamul fu mu jógee man jatara je le connais à l'université nous avons géré ensemble le mouvement des étudiants donc on se connaît dans ce pays. d'accord mais est-ce que dañu xeex pour Sénégal donc mënuñu comprendre ay saagakat ñëw rek ah, heure bu leen neexee ñuy saaga di xoxatal nit yi donc président xëy na loolu la leen wax ne leen. Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne de Dakar barki Dembo Ndiaye xaw ma démb wax na ni doomam la am taxawaay ak seede yu am solo yu mu wax ci Barthélemy Diaz tàmbalee ko ci maamam ja xam ba ci papam ak yooyu. mu mel ni daal de manière voilée am ñu jàpp ni c'est un de taille que xam nga man Barthélemy je connais pas Euh, donc voilà xam naa papa léegi nag grand sëriñ euh, c'est vrai que daan naa dégg ñuy wax ñoom ay boy town lañu ay xarit lañu woon je je reconnais que son papa que je salue au passage boy Dakar la ñëpp xam ko homme politique la kon euh, xaritu Ablaye Matar Diop la donc Ablaye Matar su amee doomam naturellement même bu ko jàppalewul politiquement dina ko encourage ci lépp lu mu mën rek ndax man mii. non man mii hmm. man mii man Benno Bokk Yaakaar laa nekk am naa suma sœur bu nekk HLM ba fa nekk candidat dama ko encouragé waaye bu may soutenir Benno Bokk Yaakaar lay soutenir donc voilà tu sais euh, les élections locales la c'est des élections un peu compliquées yow mën nga mën nga da mën naa la jox ay exemples yu dul jeex ah hmm. di nga wax ak nit mu ne la mais dama lay jàppale ah yow bey jibi yow laay jàppale du ma jàppale benn bokk yaakaar di nga wax a nit mu ne man du yeewu askan bi laa nekk mais tey yow laay jàppale donc euh, dafa doon ay élections yoo xam ne dafa am spécificité il faut ñu tenir ci compte. maanaam ay waxu euh, grand sëriñ jàppale bi mun na ci bañ a. non encouragé na doomam. parce que doomam la kooku ñëpp dañ koy nangu. Mm. te bu doon doomam moo doon dem sax xëy na ko jàppale. Mm. mais comme Barthélemy xëy na doomam la. Mm. dina ko encouragé mais nag taxul mu jox ko soutien politique am. mais soutien politique am Ablaye Diouf Sarr la ko apporté. d'accord da ngeen ne Diouf Sarr Dakar a ko soxla te Diouf Sarr dañuy fàtte souvent que conseil municipal de ville de Dakar. wala loolu amul. ci lan. du conseil municipal ville de Dakar. waaw mais ville de Dakar la nekk conseil municipal. waaw mhm. loolu dañ koy fàtte. loolu amul lan nga ci bëgg am comme jiixtal maanaam dama la laaj ndax lu am solo la wala. non xam nga nag. Euh, donc conseil naa la expliquer deux choses le conseil municipal en général. soo gisee sax euh, booy dem élection bu njëkk ba Euh, booy dem élection man bi may dem SICAP 2014 liste su PDS laa nekkoon euh, bi may dem 2014 liste su PDS laa nekkoon parce que man maa ngi dugg PDS en 2012 bi ñu daanelee Ablaye Wade laa dem fédération des cadres libéraux di jàppale Ablaye Wade 2014 ma nekk liste majoritaire derrière Soxna Ñaaña Touré bi ma ne fan laa lay dama ko ne foofu baax na xam nga lu tax bu ñu gañewul list majoritaire. mooy bu ñu demee conseil municipal ay ñetti lañ fay doon ñetti nit contre une majorité waa majorité boobu mooy décider yow sa wax amu fa sax solo. lu tax kon moo tax en général booy dem sax élection yow mi di nekk maire di nekk tête de liste da nga daan dem majoritaire comme ça boo ko yow doo fa sax ne. est-ce que kon kon kon moom Diouf Sarr xam loolu. xaaral ma ñëw non xaaral ma damay expliquer. Ah mais pour le cas de ville de Dakar. Hmm. même soo demee list majoritaire bu Yoff parce que Diouf majoritaire la nekkoon Yoff tête de liste bu mu ko gagné dafay dem forcément ville de Dakar mais bu demee ville de Dakar amu fa majorité Khalifa moo fa am majorité donc doxalul. Khalifa moo doxal loolu mooy expliquer le fait que kon gisuñu ko fenn. kan moo la wax gisuñu ko fan. kan moo la wax gisuñu ko. damay laajte. non dama ne Diop Sarr il a géré sa commune euh, yor ay responsabilité politique di ko gérer. Hmm. Khalifa moo gagné ville de Dakar. Eh? am fa majorité. mu fay conseil. Eh? dama ne am fa majorité di percevoir ay indemnités en tant que. conseil non non non un conseil ne perçoit pas d' indemnité je suis désolé. Ah. seul le maire reçoit un salaire. Sénégal lañ nekk un conseil ne reçoit pas d' indemnité. Sénégal lañ nekk amul. d' accord mosu fa jot benn indemnité amul sax ah. un conseil amul dara. Ah, ah, moo tax des fois conseil dañuy démissionné sax pour après dem euh, ubbi seeni ay kii pour liggéey donc. c' est juste kon tey Abdoulaye Diouf ñu ko wax ba ko dara ca lan mooy yoonam ci ville de Dakar ville de Dakar yoonam ci. Euh, Khalifa Sall moo ko yore woon def fa li mu fa def ñëpp xam ko. Euh, boole si euh, yor 30 milliards la woon à partir mill 2014 mu egg 54 milliards ensuite 60 milliards kenn mënul dut baaraam lu mu def Dakar. alors euh, waaw na def bilan ba pare balaa nga ni conseil municipal la ville de Dakar donte. mun nañoo neenal parti boobu noonu amul dara luñ ko ci. parce que gagné moom moo gagné ki ki am majorité vraiment moom mooy décider ci budget bi mooy décider ci horaire yow amoo loo fa wax. yoof nag. waaw yoof nag Abdoulaye Diouf Sarr moo ko gagné. non waaw am fa majorité nekk maire bi doxal ko. def yoof def euh, ba boo duggee yoof nga gis de grands changements mën naa la jox benn exemple. yéen amu leen ci kersa. cumul de fonction bi nii. ban ah, yow waxu cumul que euh, xam naa fi ngay dugg ak man foo xam ne man dama koy bàyyi waa bilan. li mu liggéey. mooy non. Ah, yow nga ko ko. mën naa la wax ma nangul la ko ba keroog ñu yegg ca. xam nga bés ba parce que loolu dañ ci yegg dinañ yegg. ci moment bi ñuy wax ndax def na wala deful moom mu ne def na. xam nga Ouest Foire mais li ma lay wax mooy. xam nga waaw gis nañ barki démb boo jaay ngeen commencé ah. waaw on a d'accord pareegu ma de revenir sur ça. fala dëkk fi nga wax ni fala dëkk am na lu ma fi xam vraiment am ma quoi. vraiment moo tax boo seetloo. boobu ba tey ba ci élection présidentielle yi Euh, président Macky Sall xam nga boo jël P Dakar élection présidentielle moo gagné woon à hauteur à peu près en moyenne de 46 Amadou Ba bi mu nekkee ci kanam dama ne à hauteur de 46 pour cent Diouf dafa dépassé à Yoff dafa gagné avec une majorité écrasante. on y reviendra. parce que ay population mais cumul de fonction bi. lan nga tuddee cumul de fonction. nekk maire nekk ministre. waaw xam nga. loi bi mayu la nga nekk maire mayu la nga nekk ministre nekk député xam nga loolu mënul am. walla da ko tere. donte nag gis nañ ñoo xamante ne. boo nekkee député daal di ñu fal la ministre da ngay démissionner sur le champ. on l'a vu yooyu yëpp xam nga maire. maire mën nañu comprendre euh, ñu bañ ko xoolee cumul parce que population yi buñ la wóoloo ba jox la lengey pour la destinée de leur localité yaakaar naa ne mën nga ko exercer loolu yàqul dara ci sa liggéey. euh, dans un gouvernement si le président a confiance en toi en tout cas tant que yoon terewu ko te gis nga fi Sénégal ah opposition pouvoir de de des des des gis nga fii euh, parti socialiste des maire ministre gis nga ko au niveau Benno Bokk Yaakaar suñu histoire politique loolu moo fi mës a am euh, maintenant amul lenn lu ko ko tere Euh, yàqulu ko dara ci liggéeyam gàcca ngaalaama li mu def yoof gàcca ngaalaama lu mu def ministre de la santé ndax euh, sénégalais yi gis nañu liggéey bu rafet bu mu liggéey ba àdduna bi yëpp saluer ko sur le plan mondial quand même sàkku nañu ci élection jëm quand ñu fexe ba atmosphère bi gën a gën a gën a gën a jur jàmm que li ñuy gis nii kan moo am intérêt ci saxal jàmm jooju ak aussi ban responsabilité la ci président Macky Sall président Macky Sall responsable de moom en tant que président de la république mooy quand mu sécuriser les sénégalais euh, mu benn homme politique bañ jëlee jël sénégalais en otage parce que nag Sénégal jeexul tey jeexul suba ay élection kese la gis nga élection expression démocratique la tey ji bu dee waa dakaar dañ maa wóolu jox ma ko ah nañ ma bàyyi ma liggéey bu dee waa dakaar dañ laa wóolu Ousmane jox la ko ñu bàyyi la nga liggéey waaye jarul xeex il faut ñu xam ne enjeu bi xam nga nag malheureusement Euh, yenn enjeux yi ngi ciy gis ni euh, gars yi sont pas des gentlemen gis nga Ablaye Wade ak Senghor daan nañu Senghor daan bopp bu attanul karo dina antan réew Ablaye Wade des fois y a eu des kenn du ko nier dans dans l'histoire politique du Sénégal y a eu mais quand même daan nga dégg Abdou Diouf Ablaye Wade di ko tuddee madame Moulin ah donc mu nekk faux ak ré pas haine haine baaxul malheureusement dama la wax sànq terrorisme moo fi am homme politique yi ma gis tey nag loolu nag li ko li ko indi mooy man pour les autres man naa comprendre parce que seen niveau d'étude sorewul waaye ba pare amuñu formation politique parce que gis nga man bi may duggu ci politique maa ngi def première lycée maa ngi dugg ci parti de gauche yi laa commencé AJPADS da nga daan formation politique donc politique du la jaral dara man tey su ma nekkoon léegi fi ma nekk sama liggéeyukaay Barthélémy Dias ñëw fa ma seen ko mu rang damay dem jël ko dugal ko régler problème jox ko mu dem te pourtant je suis dans administration parce que jàppanaane naa euh, xëy na dayoom egg na foofu euh, mës naa dama la koy raconter une anecdote bi ma bi ma nekkee mës naa gis Wilane Abdoulaye Wilane man mosuma nekk PDS mais j'ai toujours été un wadiste comme ça de salon et puis à l'université on a toujours défendu Wade bu wootee ñu génn mais sans militer dans son parti d'ailleurs loolu moo tax ay Maodo Lamine nekk ministre nekkuma ministre mais moom Lamine Keita su ma nekkoon man grand homme la su ma nekkoon PDS dëgg bi waa dajale pouvoir damay nekk ministre mais musuma nekk ci PDS mais j'ai toujours ab Ablaye Wade en tant que un Sénégalais mais ma contre parti socialiste contre ren quoi di wax dañu trahir Sénégal parce que ñun suñu génération li ñu dund ak parti socialiste boobu démocratie amul dara amul sàcc élection ah confisquer administration bi amuloon télé amuloon rajo doo fa koy waxee doo ko xam donc ñun université rek la amoon pour taal seen pour di taal di déconner pour que euh, parti socialiste ñuy xaw a contre balancé mais bi ñu génnee wàddi sa boobu ñu nekkoon moo nekk suñu xol ba tey jii may wax ak yow Ablaye Wade du ma ko tollaleeg dara donc bi ma demee ba toog suma bureau euh, j'ai vu Ablaye Wilane mu ngi may dégg maire Kaffrine boobu da daan yuuxu Ablaye Wade xam nga moom da daan wax Ablaye lu nekk ma xaw ko mere mais gis bi ko gisee mu ràng sama bureau boobu je travaille à l'hôpital Dantec je suis sorti ma ñëw jël Ablaye Wilane dugal ko sama bureau toppatoo ko dugg ci otoom ànd ak moom ba ci service bi si sëram boobu mu doon toppatoo ci wàllu wér gu yaramam lu ne laa ci def gis nga dix ans après damay dem mission Kaffrine ma woo ko il m'a donné un appartement si kër papam climatisé xam nga loolu lu rafet moo koy indi donc ñun nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des nañu jàpp ne élection yi nañ ci dem ci jàmm léegi nag Sénégal nag dafa nekk pour man au-dessus de tout mm. waaw bu ko benn nit bëggee cax caxat caxatee dañ lay caxat ñu jeexalee dara sa parcours président Macky Sall donc na caxat caxatee képp ko bëgg a caxat caxatee Sénégal d'accord euh, ñu jeexaleeg bi nga duggee ci politique ba fii lan mooy ñëw sa image loo xam soo ko fàttalikoo ci loo xam jàpp nga ni lu ñaaw la ci politique soit lu ñu la def wala loo fekkee wala dara loñ ciy wax honnêtement dama daan ànd ak bi ma duggee APR dama daan ànd ak gars yi ñuy dem mission ay Touba di ànd ak lay Diouf saa nekk ci oto yi di dem mu sa président yónni ko ci xalifa général sama gars yi des fois ñun ñu nekk ci suñu oto Ousmane Sonko man leen bàyyi leen jàmbur c'est un sénégalais il aime son pays. ñu naan mais jibi xanaa mais yéen waa si boo leen ñëwee APR da ngeen ñuy compte man leen non du loolu Ousmane Sonko c'est un citoyen ma dégg Ousmane Sonko Adji Sarr sama jabar mu may seetaan ma ne ko mais Ousmane mënul def lii parce que mënul def li lii ay wax la fake news la yàlla moo ma tiim yàlla moo ma tiim quoi sama bàmmeel mu ngi fii ëllëg après yi le lendemain je vois Ousmane Sonko woote conférence de presse may xaar mu ne fake news la muy expliquer ay dama doon dem vingt 22 heures donc di dama feebar ma ne oh la là oh loolu daf ma marqué. entre nous beneen bi mooy bi muy woo Sénégal pour taal Sénégal neex dëgg yàlla dafa ma marqué daf ma marqué xaw ma lan la loolu dafa créé ci man benn engagement sursaut bu graaw ma commencé si def ay conférence de presse parce que Sénégal kenn waru ko taal Sénégal dafa nekk au-dessus de tout le monde de Macky Sall de Sonko de Barthélemy d'accorduma tam réew boo xam ne dañuy jël justice bi di ko manipuler d'accorduma ci waaye tu sais amul justice bu parfaite mais on fait confiance à nos parce que y a yu ñuy denc ci kaso bi te defuñu dara dañoo juum ci ñoom mais dañuy nangu ñu tëdd ko donc homme politique yi ñoom nekk ñu gënuñu sénégalais yi gis nga jour bi nga xam ne ñoom ñu ngi def li ñuy def am na koo xam ne mu ngi am na histoire bu douloureuse bu fi xew fan yee ngeen dégg ko ay xale yu génn àdduna ñu waroon dem jëli seen permis d'inhumer tribunal au fin d'inhumation ci procureur ñoom Barthélémy taal dëkk bi je fais partie de deux jours après lañ jot corps bi c'était très douloureux alors que ye yu mel noonu bu ñu dencee nit yi rek dina xaw wàcce wàccee tension bi mais dimanche nga yëg lu douloureux nga ciy daw di ci daw ba bi le 10 mu tere ñu dem jëli loolu loolu homme politique il faut ñu koy jël en compte leneen ay ñu jóg pour wuti dépense gendarmerie bloqué tali bi parce que Barthélemy nee na pour mu wuyu ji dafay doxantu xam nga loolu rafetul il faut ñu am hauteur ah def politique autrement quoi surtout j'appelle à cela quoi ya y a ba ñu dem nag ba cour suprême ba gars yi bëgg la taxañ te teguwul ci yoon ñëpp gis ko bu boobaa xeex dina mën a am résistance dina mën a am mais yow dañ la convoqué kese mm. demal wuyu ji ba nga la nga fa jëlee boo ñëwee nga mettre ko à la disposition des Sénégalais il faut que nous soyons modestes nous les ñu ngi lay gërëm sant Djibril Bèye la ñu àndaloon bokk ci plateforme bi ñu dippee Abdoulaye Diouf Sarr Dakar moo ko soxal soxal Dakar moo ko soxal ah. gërëm la sant la beneen yoon ci beneen numéro C'est Politique merci Pape di la gërëm di jéggalu ah. su dee propos yi vraiment am na ko mu blessé maa ngi baalu ñëpp ah waaw di encourager suma leader di ko ñaanal yàlla jox ko fit de Dakar le 23 di appeler Dakar waaye ñu xool candidats yi bu baax a baax ak les propositions de programme je vous remercie